jéggal nu tooñ yépp sol nuy barke ngir Tuuba rànnaate jébbulu jébbalaat njaboot di maam nangul nu njëbbal di sol nuy ndam Sëriñ Tuuba ci yow la ni naane leeru barke yaay ki nu gëm duyal magan ba tey rek damay continuer wéy di li nga xamante ni moo di euh, liggéey bi dalal waa commission bi maa ngi nii nag dalalaat beneen jëwrin moom tamit ci commission bi lay yëngu du def rek lu dul di ko nuyu di ko ziyaar te di ko bàyyi moom tamit si mu nuyoog internet di ñuy seetaan présenté ñu. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu soxna Awa ñu ngi lay ziar di ziar waa euh, Gaydel TV yëpp euh, tey ziar képp ku nuy seetaan. Euh, di am mbégte lool ci tontu ci laaj yi nga xam ne euh, di ngeen ko indi tey incha allah maa ngi tudd Jëwrin Birane euh, nekk ci nekk responsable commission service bi nga xam ne daa farewaat ci wàllu kon toppatoo gan yi rek ba tey waaye ci anam boo xamee ne wuute nag kon commission yi nga xam ne jot nañ fee njëkk a jàll. Jëwrin Birane li nga xamante ni mu di commission service bi naka la waajalee boppam ci màggal Touba gi. waaw commission bi ay membre ñoo ko constitué yoo xamee ne sii sëriñ bi moo leen tànn te tànn gi it mu ngi aju ci rek seen pas-pas boo xamee ne feeñal nañ ko ci biir ab liggéeyam mu méngoog nag li nga xamee moom la moom la bëgg donc la ñuy tàmbalee mooy di définir carrément li nga xam ne moom mooy service bi lan lañ ci déggee dëgg-dëgg euh, te mooy liggéey la boo xamee ne si gan yi gannaaw bi nga xamee ne dalal nañu leen gannaaw bi nga xamé ne tek nañ leen ci barab fa am nak yo xamee ne si dañ koy wo muy bernde yi nga xamné war naa jëm ci ñoom ak lepp lo xamné rek mën na né taxaway la kon bo xamé si waras na am ci ñoom ah, mu tambalé kon ci xéewal yi ya nga xamné rek mom lañuy téro gan ci sa bo xamé ne yu mel amna euh ginnaw ginnaaw xéewal yooyu it ma nga ca way ba lepp lo xamee si rek yittewoo ñun service ñoy nga xamné ño wara dem saytu loolu nuñ ko amee indil ko ko mu mën caa jot ba mën caa def la nga xam ne moom la ca soxla ginnaaw bi loolu it nag ku nekk xam nga ne événement yu mel nii ay ziar day faral di am eh, sëriñ bi it nit ñi moo leen fi indi kon nag lépp loo xam ne ak jàppandal la ñu mën koo def ci ñoom gisante googu ak sëriñ bi mën a yomb ñu def ko li nga xam ne aju na it ci war leen a génn ñu dem ci cérémonie officielle bi nga xam ne ci kanam tuuti dana dana tàmbali loolu it ñu fexe ba yombalal ko gan yi utal leen place yoo xam ne si euh, place yoo xam ne yu ràññeeku la fu jege foo xam ne dinañ mën a gis sëriñ bi ni ñu ko xamee ne noonu lañ ko noonu lañ ko yittewoo yooyu yëpp bokk na ci li nga xam ne service moom lay moom lay taxawu bu weesoo yooyu nag li nga xam ne mooy rassemblement yi nga xam ne day faral di am maanaam day am ñam yoo xam ne wala loo xamee ne si ay naan yu ñuy séddale la ci biir mbooloo yi niki ziar bi nga xam ne weesu nañ ko sànq rek ci bëccëg mu mel ni mbooloo mi waxtu yi nga xam ne ñëw nañu waxtu tàngoor la ñu ngi euh, toog di def par vague di ñëw di siyaare sëriñ bi kon am na ñoo xam ne dañu yàgg ca jotaay ba kon lu mel ni di leen seddale ay ndox yu sedd ak lépp loo xam ne rek dana tax jotaay ba gën a gën a taw feexe loolu it day mel ni rek bokk na ci biir liggéeyu service kon lu dimee noonu rek mooy liggéeyu service ci niñ ko mën a niñ ko mën a tënkee waajtaay bi nag ni ma ko waxee membre yi kenn ku nekk am na loo xamee dañ la koy sas nga war koo waajal mu melni ben som global bu ñuy dajale la ngir lepp lo xamne nak moy yoyu ñu yewenal ñam yoyu di tedd yoyu ñu yewenal ci kom gogu ci lañ koy jënd waye amna na réunion yo xamne dañu koy def lu jitu magal gi waxtaane liggey ba yëpp seet itam équipe bi ku nekk ci lan lañ lay fétalé ndax mu responsabilité yi mëna a situé wu ba buñ ca joggé rek buñu évaluer kenn ku nekk xam fa nga ca tollon muy lo xamé ne si nak ni sëriñ bi dañ ko mate ba taxna na nak nag la ni nga xamé non la sëriñ bi bëggé rek lañ ko fas di doxalé ci at mu jot waaw. mën nañ euh, ñi nga xamante ne ñoo yor wàllum service bi ñoom amuñu waxtu saa su nekk rek ñoo ngi ñoo ngi séddale. waaw day mel ni noonu la demee ndax saa su nekk rek euh, gan moom waxtoom la xam ak waxtu wa mu yittewoo sëriñ bi xëy na ñu daje fi xëy na du ñu fi daje waaye waxtu woo xëy na si gan leeral nañ ñu ne nag nekk na barab sàngam rek ñun day mel ni rek amuñu lu dul obligation wu fekk ko fa. doxal li nga xam ne mooy suñu liggéey kon n'importe quelle bu mu mënti ñëw rek ñun jekk nañ ngir li nga xam ne mooy la ca war ci ñun suñu wàll ñu doxal kook moom waaw. jaajëfal jëwriñ euh, Birane Ngom yow mi nga xamante ni yaa yor yaa jiite li nga xamante ni moo di commission service bi ci leeral yi nga xamante ni moom nga indi ci woon ci plateau bi en direct Gaydel TV ci suñu plateau spécial 18 safar. jërëjëf waaw euh, lii moom sant nañ ci bu baax a baax muy liggéey bi nga xam ne Gaydel TV mi ngi koy def. ci événement bu ni toll nga xam ne 18 safar mooy lépp sëriñ bi ndax sëriñ bi ku ko xam-xam ne moom sëriñ Touba rek mooy yitteem suba mooy yitteem guddi te taalibe yi fu nekk ña nga fa euh, ci àdduna bi am na saa bu nekk nag ñoo xam ne dinañ jàpp ni mën a teew am na ñoo xam ne it dinañ gàllankooru ba duñ mën a teew kon nag liggéey bu ni mel dana tasaare itam li nga xam ne moom lañ nekk fii ci waxtu wi ñu man cay jotaat ak di ko mën a seetaan ni nga xam moom noonu la leen soobee. Euh, muy mbégte moo xam ne rek kon dañ koy ànd ak mbokki taalibe yi yëpp te loolu liggéey bu ni mel rek moom moo ko mën a tasaare kon loolu ñun tamit ñu ngi leen ciy jërëjëfal bu baax di leen ci encouragé te di leen ñaanal di leen bàyyeeg sëriñ bi moom mi nga xam ne rek moo xam la la mu ca jublu waaye lépp rek xam nañ ne njërëmal euh, maanaam jaami yàlla yi lay doon ak yërmandey sëriñ Touba ci ñoom.